dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar te wóor abonné leen dara bañ leen a raw. AGT news. jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci AGT news dal leen ak jàmm. cuuraayu dëmm bi tàkkati na laata ñoo yeggali aimé leen vidéo bi partagé ko ñu bëree bëri man cee jot kon comme liñ leen ko waxee cuuraayu dëmm bi tàkkati na du samay kàddu kàddu yu Alioune Badara Mboup la gannaaw bi nga xamee ne Ousmane Sonko génn na ca esplanade bu Grand Théâtre bu Dakar def fa discours bu am solo boo xam ne ma waral Sénégal yëpp yëngu ñëpp xëy di ko waxtaanee moom aline Badara Mboup mu ne cuuraayu dëmm bi tàkkati na moo waral tey ñëpp Ousmane Sonko la ñu amee comme nañ ko doon defee ay jamono moom bu génnee rek yëngal lépp yëngal fépp génne itam gaay ci seeni ay pax ba ku ci nekk tàmbali di ko ŋawti ŋawti moom Alioune Badara Mboup mu ne bëri na ay observateur yoo xam ne communication wu démb bu Ousmane Sonko bi lañ xëyee di ci addu addu yam yëkkati yi nga xam ne garabu ko ko yewekkee woon ñuy opposé opposé lu ñëpp la waddal délinquants fiscaux yi ak journalistes yi nga xam ne désinformation maanaam wax lu dul dëgg dong mooy seen yitte kon mel na ni Ousmane Sonko daa gësam garab ga ñëpp wadd ñëpp daanu doon làqatu daal di feeñ bëri na ci ñuy jéem a jox ay leçon de communication kooke di Ousmane Sonko loolee moo waral Alioune Badara mu ne am na mbir moo xam ne faw ñëpp daal di koy jàpp ci Ousmane Sonko mooy amul benn expert boo xam ne mën naa xam kan mooy usman Sonko saa su nekk dinañ juum ci moom moom bu génnee rek daal di leen njuy Ousmane Sonko mooy politicien boo xam ne kenn mënu koo serne kenn mënu koo téye kenn mënul xam fu muy fëllee façon bi nga xam ne moom lay defee communication ute na lool dafay anticiper maanaam gars yi lu ñuy xalaat ak lu ñuy wàcc yépp moom Ousmane Sonko bu génnee wax ci yàq seeni plan ba sax ku ko ciy jéem a tontu da ngay passé à côté moom usmaan Sonko homme politique la boo xam ne situation bu buñ ko tegal mën na cee génn loole moo waral Alioune Badara Mboup di fàttali kaddu yi Babacar Justin Ndiaye ya mu doon wax naan moom Ousmane Sonko buñ ko attaquer da cay génn bu attaqué itam da cay génn loolee moo waral ñi nga xam ne dañuy analyser ay kaddoom tënk ko ca nañ naan defee politique démb saa ci njuumte dëkk ndax Ousmane Sonko bokkul ci homme politique yooyee nga xam ni analyse politique yu njëkkaan yi lañ leen di defal ngir mën a xam ku ñu doon lu ñu doon fan la ñu jëm ak lan la ñuy waajal moom Ousmane Sonko saa su génnee rek presse bi maanaam journaliste yi am ci lu ñu wax homme politique yi itam. lu ni mel nag li koy dëggal nekkul leen du la xool leen journaux yi tey ñëpp Ousmane Sonko la ñu titré ñëpp ca moom la ñuy waxtaanee ba ci sax yenn politiciens yi nga xam ne dañoo lëlu woon nekk ci seen ruq. ñoom ñëpp tàmbali di génn benn par benn di cëppi cëppi. loolee moo waral moom Alioune Badara Mboup mu jàpp ne génn bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko lu am solo la te lañ ca doon séntu doon ko ca xaar gis nañ ko ci. te lañ ca doon xaar nekkul leen lu dul ñi doon neutre neutre lu ak opposants yi nga xam ne ñoom seen i salon la ñuy toog ñëpp la imposer benn rythme génnaloo leen par force boole ci nag remobiliser les troupes maanaam ndaw ñi nga xam ni ñoom la convoqué woon waxtaan ak ñoom ngir wan leen yoon bi ñuy jaar ak fan la ñu jëm ba tey Alioune Badara Mboup naan Ousmane Sonko dina déjouer seeni attente maanaam fa ngeen koy xaar saa su nekk ak fa muy pëllee du nekk benn lu ni mel nag dafay wane tey dëggal ne moom ute na ak ñoom bokkul ak ñoom la ñuy defee politique ku mel ni moom ci wàllum politique benn la fii li nga xam ne mooy force am mooy boo ko attaqué yi maanaam yaa koy song waaye moo lay daan discours am moom gars yi dañ koy dégg gën ko cee bëgg gën ko cee fekk si loole moo waral woote ba nga xam ni Ousmane Sonko def na ko moom ak le président Bassirou Diomaye Faye mooy ñu nekk ay citoyen modèle ñëw jéem a servir suñu réew waajal vacances yi di ñëw fas yéene dem ci tool yi futteeku ngir liggéeyal Sénégal bayal réew mii ngir mën koo dundee jublu itam ci yeneen i activités yoo xam ni dafay tax la ñuy ci développement ci suñu am réew kaddu yu am solo jëmale ko ci président Ousmane Sonko ak sortie bi mu def démb moom mi nga xam ni dafay faral di def ay jàngat yu am solo moo waral ñu leen koy la li am ba des mooy nañu focus jeexagul faw rek ñu jublu ci li nga xam ne mooy tax suñu am réew jëm kanam te bokk na ci ñu am jeunesse bu consciente xam fi mu jëm xam fi muy teg tànkam xam li muy def waaye surtout xam les priorités loole moo waral Ousmane Sonko du sonn du tàyyi ci di waxtaan ak ñoom ndax Sénégal gi dañ ko war a de la Seine mën nañ cee am ndam faw rek ñu ànd booloo tànk ak tànk mbag ak mbag ngir mën a soppi suñu Sénégal AGT News cuuraayu dëmm bi tàkkati na beaucoup d'observateurs parlent de la communication de Ousmane Sonko d'hier qui a secoué les cocotiers des pseudo-opposants des délinquants fiscaux et des journalistes adeptes de la désinformation certains se sont même permis de jouer les censeurs donnant des leçons de communication politique à Ousmane Sonko cependant s'il y a une chose que je son Sonko, c'est que tous les experts se tromperont toujours à son sujet. Ousmane Sonko est un homme politique qu'aucune expertise ne peut cerner. Sa mode de communication est différente des communications classiques et son sens de l'anticipation est hors du commun. Il est un homme politique capable de sortir des situations les plus compliquées. C'est pourquoi Babacar Justin Ndiaye disait à propos de Sonko, s'il est attaqué, il tient le haut du pavé, s'il attaque, il tient le haut du pavé. Ceux qui analysent les sorties de Ousmane Sonko de manière classique se tromperont toujours à son sujet. Sonko est un homme politique qui échappe aux analyses traditionnelles. Les sorties de Ousmane Sonko alimentent la presse et ses adversaires La preuve en est dans de ses adversaires adversaires en perte de vitesse qui sortent de leur bois. Sa sortie est bien pensée et a eu les effets escomptés, à savoir faire sortir les faux neutres et les opposants de salon de leur trou tout en leur imposant son rythme avec une remobilisation des troupes. Ousmane Sonko continuera toujours de déjouer les attentes, prouvant ainsi qu'il est un acteur politique d'une envergure unique, capable de transformer chaque attaque en opportunité et chaque discours en stratégie de conquête. En route vers des vacances utiles et agréables avec les volontaires de la citoyenneté. Des propos de Alioune Badara